dafa jaral lu iya, iya. ne. man gor duma ma asale góor du ma mais dama la ne. paquet du biscuit. benn doo koy lima li ma ngi jabo tay li wax ji di gëna bari mu gëna metti. mais ku bëgg gis prix tour prix tour na mu joo xamantene sama bakkan lay tek man fo sax bëgguma ko mo la nak ñu dugg biir kii. foo rek ma la gëna xoté gën a xotteeku fuuf. xotteeku yow ban man may yalla la wax. ma damaa yàqu. waaw maa la nga xottee. ñu tàngoo yàqu di dem. préparé ju ak ay mbokkam Modou Lo dem Lac Rose préparé ji ak ay mbokkam bis ba nag jot na le 24 novembre ñaw xoon dina du am yàlla rek moo fi ne le 24 novembre ña waxoon ne xam nañ kuy daan yàlla rek a fi ne jàmbaar production jërëjëf jërëjëf la PDG Mansour Ba yàlla sa xol la fay ndax ab réew boo ci nekkee yéene ñëpp jàmm bu ñëpp amul jàmm nga am jàmm moo taxit Mansour Ba jàmm rek ngay am macha allah képp ku la ko yéene maam mi ñu tuddee drapeau bi yàlla na yàlla guddal fanam moom it jàmm rek lay yaay mère Dramé ñu koy ñaanal di ko ñaanal suñu yaay bopp di ko ñaanal suñu baay bopp di ko ñaanal képp ku yaay arbitre bee ngi wax ak ñaari li règlement bi nangu ak mu bañ Siteu Modou Lo am na lu muy léemu am na lu muy léemu Modou Lo am na lu muy taalal na loxo bi am na lu muy léemu Modou Lo ngay tari moom Modou ma tari tari na raay ci kanam gi raay ci dënn bi raay ci biir bi Modou Lo Modou Lo Siteu <laughs> Modou Lo Siteu Modou Lo Siteu ay ca arbitre bi ngi laaj ay siisam ndaysaan mbokk yi dimanche 24 novembre 2024 arène nationale journée jàmbaar production Modou Lo moom nga jàkkaarloo Siteu moo la woon ginnaaw il est 20 heures 15 minutes il est 20 heures ñoom ñaar ñu ngi Modou loo jiital tànk ndi joor wala tànk càmmoñ Siteu jiital tànk ndi joor maanaam Modou Lo garde normal la Siteu fausse garde la ca nañ ko mën a waxee ñoom ñaari mbari ku ci nekk wax na ku ci nekk def na open press yëkkati ay kàddu jëmale ko ci mbokk moroomam waaye Modou Lo tontu Siteu Siteu déglu ko ñoom ñaari ñu ngi lewaatoo ñu ngi leewaatoo Modou Lo mu koy xool ci bët Siteu a xool ci bët kan moo njëkk a déclenché xeex bi Siteu wala Modou kuy déclenché Siteu wala Modou booy xool ci wàllu njool Siteu moo sut Modou Lo booy xool ci wàllu poids dafa mel ni Modou moo xaw a gën a diis tuuti waaye ñoom ñaar ñu ngi ci combat bi ba tey ña ngay leewaatoo ña ngay lewaatoo ña ngay ñoom ñaar ña ngay lewaatoo Modou Lo jàpp na ci loxo Siteu Siteu koy déglu Modou Lo Siteu stade bi nee na selaw ku dem Parcelles Assainies fi mu toll nii lekkuñu naanuñu ku dem jàmm gën fi mu toll nii lekkuñu naanuñu Modou Lo tàllal na loxo bi Siteu bañ lan mooy mën cokaas na cokaas na cokaas na cokaas na dara xewagul ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar ñu ngay lewaatoo ñu ngay lewaatoo Modou daa bëgg a dem cokaas na si te di ko déglu Modou daa bëgg si tànk koy déglu kenn mooy njëkk a bagaar bi entre Modou Lo ak Siteu entre Modou Lo ak Siteu kan moo njëkk a def Siteu déclassé na Modou reculé laa ilaha illallah Siteu Modou Lo ña ngay lewaatoo stade bi nee na selaw fi mu tol nii géwal lañ ngay dégg géwal rek mooy bàkk géwal rek mooy bàkk géwal lañ ngay dégg Siteu Modou Lo ña nga ca Siteu Modou Lo ña ngay lewato ñoom jege na saaku bi Siteu jege na saaku yi Modou Lo teg ka sadda waaye ba léegi déclenché gul xeex daa mel ni day xaar Siteu jóg mu déclenché xeex bi moom Modou Lo Siteu Modou Siteu Modou Modou cokkaasaat na <laughs> ay waay lan moo a xew couronne bi fan la jëm day dem Diamaguène wala day dem Parcelles couronne bi fan la jëm Parcelles wala Diamaguène ay ca ñoom ñaar ñu ngi ci combat bi ba Maam Père ba bi fan la jëm cokkaas na dóor xeex Modou cokkaas Siteu bañ na reculé na Siteu reculé na moo doon koy cokkaas daa bëgg a dóor na Siteu fayu na moodu dóor na dóor dóor xeex nañ dóor na ko dóorante nañ dóorante nañ Siteu dóor na ko Modou nee na ko kaay laa ilaha illallah Modou nee na ko génn nañ saaku yi xeex nañ xeex bu métti ah, laa ilaha illallah <laughs> avertissement Siteu génn na saaku yi dañuy xeexaat arbitre siflé waat na ñu ngi lewtoo Modou Lo Siteu la laa ñoom ñaar ñu ngi bëre ay waay fi mu toll nii sama xol bi de kenn xamul lu ci ne ndaysaan ndax ñaari xale yi bëre ku ci nekk ànd ak say mbokk ñëw ndaysaan te ñaari ndamay dugg benn ay génn Modou déclenché woon na xeex Siteu jege saako yi waaye bi yoon ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci digg géew bi ragal naa bi yoon bu déclenché waatee xeex bi dina gaaw a jeex ñu ngay xe ñu ngay lewtoo ñoom ñaar Modou Lo jàpp na ci loxo bi ñoom loxo yi jegante nañ ñoom ñaar Modou déclenché waat koy déglu. Modou Lo déclenché waat na Siteu di ko déglu Siteu cokkaas na Siteu cokkaas na Siteu cokkaas na Siteu na laay laay la laa am na ñuy xam ñu leen di génne ci stade bi am na ñuy xam ñu leen di génne xalil ñoom ñaar ñu ngi lew taw ba tey Modou Lo Siteu ba tey ñu ngi lan moo nar a xew Modou na Modou mépp na Modou Lo mépp na Modou mépp na ñu ngi leewaatoo ñu ngay leewaatoo cokkaasaat na Modou cokkaasaat na Siteu a ngi déglu Siteu léewtoo bi combat bi yàgg na bëri nañ 4 minutes ah ndeysaan kon bëri nañ 6 ni ko Khalil waxee kon mu dese leen 3 minutes 50 secondes Siteu Modou Lo ñu ngi leewaatoo ba tey Siteu Modou Siteu Modou déglu na ko Modou Siteu. Modou déclenché na déclenché na xeex dóor dóor na Modou koy dóor Siteu génn saako yi dóor na ko mu dëpp Siteu na Modou Siteu dóor na Modou dem na Ardo Siteu yóbbu na Modou Ardo wala déet Modou Lo dem na Ardo c'est une première fois dem na yóbbu na Modou Lo Ardo Siteu yóbbu na Modou Lo Ardo laa ilaha illallah Sito yobu na modlo Ardo Siteu yobu na modlo Ardo La ilaha illallah Siteu na modlo Ardo c'est une première le roi des arènes dem Ardo C'est histoire Siteu yobu na modlo Ardo delu n'anyo. dellu siwaat nañu dellu siwaat nañu deux avertissements pour Siteu deux avertissements pour Siteu arbitre bi woowaat na leen arbitre bi woowaat na leen arbi waat na sifflé waat na Siteu Modou Lo ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo lan moo a xewaat Siteu jàpp na ci baaraamu Modou Lo bi ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo Modou Lo moo la féete càmmoñ Siteu féete la ndijoor Siteu féete la ndijoor Modou Lo ak Siteu ñoom ñaar ñu ngi ci combat bi Siteu Modou loo Siteu Modou Lo Siteu Modou Lo ñu ngi ci combat bi ba tey Siteu cokkaas na waaye dara xewagul ndaysaan Modou Lo daa mel ni day dégager benn confiance boo xamante ni ci xale bi te Siteu da koo bàyyi combat bi di ko déglu ndax nag yaa jël sa teg ko tegal ko xale ngeen fas yéene bëre lan moo nar a xew Siteu Modou Lo ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo Siteu Modou Lo ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo Siteu Modou Lo ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo dara xewagut ñoom ñaar Siteu Modou Lo Siteu ngi laaj Modou lan la looy téye sama loxo Siteu Modou loo Siteu Modou Lo ñu ngi ci combat bi ba Modou déclenché waat na dóor na benn góos Modou Lo dóor na benn góos Siteu Modou Lo ñoom ñaar ñu ngi ci géew bi ñu ngay lewaatoo combat bi des na une minute trente cinq secondes cokkaasaan na Modou cokkaas na Siteu Modou Siteu Modou jàppandoo Modou door na Siteu fayu na doorante nañ Siteu door ngay dal Siteu door na Siteu door na Siteu ngay door Siteu door na Siteu door na saako yi laay laay la laa Modou Lo kanam ko na Siteu yóbbu ko ardo Siteu yóbbu ko ardo Siteu yóbbu na ko Ardo yalmin bi yóbbu na Modou Ardo laa ilaha illallah arbitre suuf la wax na Modou am na avertissement mais nee na arbitre bi moom moo génn ñu ngay lewaatoo ba tey Modou Lo Siteu laay laay la laay ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar Modou Lo tànk càmmoñ Siteu tànk ndijoor ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ñu ngi lewtoo ñoom ñaar Siteu Modou Lo ndaysaan ñu bari ci stade bi ñu ngay xam supporteru Modou Lo yi fi dool yi ña nga taa ba jeex na ba jeex na taaba jeex na laa ilaha illallah ay ca arbitre bi ngi leen di woowaat Siteu ngay laaj ndox daa bëgg a naan naan na ba bare moom Siteu ndaysaan xool ko moom Modou Lo arbitre bi woowaat na leen mu ngi waxaat ak ñoom ñaar Siteu ak Modou Lo arbitre bi nga wax ak ñoom arbitre baa ngi wax ak ñoom ñaar arbitre baa ngi laaj ay siisam moo doo ngay léemu waat moo doo ngay léemu waat laaj na Siteu Siteu nee na pare na arbitre bi sifla waat na mbokk yi si waat nañ ci deuxième mi-temps bi ginnaaw bi ñu bëree dix minutes dem récupéré dellu ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar Siteu moo fete ndi joor Modou Lo fete càmmoñ ñu ngay lewaatoo ñu ngay lewaatoo Siteu Modou Lo ñu ngay lewaatoo Siteu tàllal na loxo bi rek tàllal na loxo ndi joor bi di déglu Modou Modou Lo da ko bëgg a jàpp Siteu bañ Modou Lo Siteu Modou Lo Siteu Modou Lo Siteu ngi leewaatoo ñoom ñaar Siteu siggi na Siteu siggi na Modou Lo Siteu Modou Lo Siteu Modou Lo Siteu ñoom ñaar ba ñu ngi lewaato Siteu ngay jël loxo yi di ko wërale ci loxo yi Modou Lo arbitre bi nee na leen bëre leen arbitre bi nee na leen bëre leen Siteu déclassé na Modou sëgg déclassé na rek Modou sëgg Modou fan la jëm ñoom ñaar dañuy bëre wala dañuy xeex Modou cokkaas na Modou cokkaas na Modou cokkaas na ñoom ñaar ñu ngi leew too ba tey jàppante nañu baaraam jàppante cey lamb ñoom ñaar ñu ngi noonu ci géew bi Siteu Modou Lo Siteu Modou Lo xeex dóor na fayu dóor moo doo ngay dox ci koom Siteu dagg na ko si dagg na léewtoo bi Modou Lo déclassé na bagaar bi léegi si dagg ko laa ilaaha illallaah Siteu Modou Lo Siteu Modou Lo ñu ngi lewtoo ñoom ñaar Siteu ngay wax ak moom ba tey nee na Modou Lo jëmal wala nga jëm droite Modou cokkaas na Modou cokkaas na Siteu Modou Lo Siteu jokkaasaat na jokkaasaat na li ma jaaxal ñoom ñaari mbëri ku ci jokkaas sa morom jokkaas bi day dal waaye amul kenn ku ci dëggal boppam ci wàllu xeex ndax Modou saa yu déclenché Siteu reculé te Siteu daa bëgg Modou Lo ñëw ci tànk yi ndax ñoom ñaar ku ci nekk loolu lay calculé Modou daa bëgg jàppante wala mu xeex Siteu li mu bëgg mooy Modou ñëw ci tànk yi ma ngay loxo bi moom Siteu ndeysaan Siteu jàpp na dóor na Modou yóotu na bi Modou Lo yóotu na tànk bi léegi Modou dóor na Modou dóor na Modou dóor na jàppante nañ ma ngay dóor Siteu Modou Siteu jàpp na Modou Modou Lo nañ moom Siteu Modou Lo Siteu Modou Lo dugal na bopp bi moo loo dugal na bopp bi Siteu ngay reculer Siteu ngay reculer sita jàpp na ci pokotaanu ngemb Modou Lo Siteu daa mel ni fi mu jàpp baax na Modou Lo lu muy def Siteu Modou Siteu Modou Lo Modou Lo loxo ndi loxo càmmoñ bi jàppul déclenché na mbot Siteu bañ na Siteu bañ na coach Modou Lo bi nee na bëggul loolu Modou Lo jàpp na ci loxo bi Modou Lo jàpp na ci loxo bi Modou Lo jàpp na ci loxo bi Siteu ak Modou ñoom ñaar jàppante nañu Modou Lo ma ngi koy jox wet laa ilaha illallah Modou Lo mu koy jox wet Siteu lu mu nar ma ngay buux Modou Siteu ngay buux Modou Lo Siteu tee na Modu loxo Modou Modu Siteu tee na Siteu tee na Modou dóor na Siteu Modou Lo Siteu Modou lan moo lan moo lan moo lan moo xew lan moo xew Siteu nee laa ilaha illallah ayca dellu si waat nañ Modou Lo Siteu dellu si waat nañ Modou ngay léemu waat ma ngay léemu waat ma ngay léemu waat ma ngay léemu waat ar bi sufle waat na dellu si waat nañu ginnaaw biñ demee vaar ñu ne dara xewut Siteu ak Modou Lo dellu siwaat nañ ci diggi géew dellu siwaat nañ ñu ngi lewaatoo ñu ngay lewaatoo ñu ñoom ñaar Siteu déplacé wu na Modou topp ko Siteu Modou Lo Siteu Modou Lo cey lamb ji lamb ji metti na lamb ji metti na arbitre bi nee na leen bëre la laa ilaha illallah ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar dara xewagul ndeysaan fi mu toll mbay ak lum rek ngay dégg ak moomoo ngom ndeysaan rek ngay dégg ñu ngay lewaatoo jàppante nañu Modou jàpp na ci loxo Siteu yi combat bi metti na combat bi metti na ñu ngay dara xewagul ñu toll nii stade bi ngi ne selaw fim mu kep ko andak ku ànd Lo tiit nga kep ko andak ak Siteu tiit nga ndax yaakaar naa ni Modou Lo gëj naa bëre combat yu yàggee ni amna match nul digante ak la de guerre numero 2 waye ba tey combat moom Siteu lu muy mujj Modou Lo Modou Lo Siteu Modou Lo Siteu ñoom ñaar ñu ngi ci combat bi ba tey Modou Lo ñu ngi ci combat bi ba tey Modou Lo ñu ngi ci combat bi ba ñu ngi lewaatoo dara xewagul Modou Lo Siteu Modou Lo arbitre bi sifflé waat na dellu waat nañu avertissement Siteu am na 3 Modou am 2 arbitre bi sifflé waat na ñoom ñaar ñu ngi ci combat ba tey combat bi daa nar a 3 2 mbaaru combat bi daa nar a jeexee nii combat bi nii la nar a jeexee Modou Lo Siteu Modou Lo Siteu ñu ngay lewaatoo Modou dem Modou daa bëgg dem waaye Siteu koy déglu Modou cokkaas na góos Siteu a déglu Modou Lo Siteu ñoom ñaar ñu ngi ci combat bi ba tey Modou Lo Siteu Modou Lo Siteu Modou Lo Siteu Modou féete la gauche Siteu féete la droite ndeysaan des na une minute vingt secondes ñoom ñaar une minute vingt secondes une minute vingt secondes laa ilaha illallah bi des na une minute combat bi des na une minute combat bi des na cinquante quatre secondes bu jeexee Modou Lo la ñuy jox ndam te combat bi toll na ci 46 secondes 44 laa ilaha illallah 39 ñu ngay lewaatoo ba tey 39 30 secondes temps ba jeex na jeex na jeex na laa ilaha temps jeex na Modou am na waaw waaw Modou am na ndam Modou Lo am na ndam ji dafa jaral lu ne man góor du ma asale góor du ma gëtëng. mais dama la ne. paquet du biscuit. benn doo koy yëy. li ma waxoon maa ngi jaba tey. li wax ji di gën a bari mu gën a metti. mais ku bëgg gis prix dur prix dur. xeex naa mu joo xamante ne sama bakkan laay teg. man foo sax bugguma ñàkk. waxuma laaj nag ñu dugg biir. koo rek maa la gën a xottee. fuuf xotteeku yow man man may yàqu. la wax man damaa yàqu. waaw maa la gën a xottee. ñu tàggoo yàqu di dem.